Situé à et Nord, en face du camp militaire Tiaroy, juste à l'entrée de l'autoroute à péage, cours privé Dr Cherdien ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays, alors n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cherdien. Les niveaux sont répartis comme suit, élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 432 94 71 ou visiter notre site internet écolecherdien.gmail.com. La réussite, c'est nous. Euh, Amina, je suis contente parce que je vois une jeunesse sénégalaise engagée, une jeunesse sénégalaise déterminée à contribuer de façon euh, décisive et de façon très positive au développement de ce pays-là j'ai vu une association qui regroupe euh, pas mal de profils Amna ay chef d'entreprise sibir, Amna artisans sibir, des pêcheurs d'autres profils aussi variés que les acteurs culturels et autres Lolo doit représenter simplement la jeunesse sénégalaise Et euh, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir reçu la jeunesse sénégalaise en tout cas en miniature ñu am envie wu contribuer ci développement réew mi am nag vision bu claire ci nan la ñuy contribuer ci développement réew mi te li koy lal wala li ci jiitu mooy pas-pasu am yaakaar ne lépp mën naa sottee fii loolu rek déjà dafa doy ci wane ni bu ñu ko accompagner bu ñu leen gungee kenn ku ci nekk ci ñun ci la mu xam ak la mu mën lii ma gis tey jii muy yaakaar yaakaar mën na cee sosu mën na cee dëgër Euh, di rafetlu aussi vraiment ñi nga xamanteni ci ñom ñoo am initiative bi Titi Yoro euh, ak Bil xeyna ak ñeneen ñi ñu andal ci ci liguey bi ak aussi vision biñ ci am ci réaliser le rêve de beaucoup de jeunes nga xam ne tey jii kenn ku ci ci ñoom am na ben yene mais xamul xeyna yoon bu muy jaar pour mottali yene jojo tay ji yaakar dama gëm ne dafa ñew pour euh, nas yéene yooyu noonu pour kenn ku ci nekk ñu gunge la ca wàll wa nga féete pour mën a ñoŋal sa liggéey pour mën ci jariñ sa bopp jariñ ci saw askan donc loolu tey jii nii vraiment lu ma jox fierté la parce que gëm naa ne ci initiative yu mel nii ci lañ mën a développer réew mi mooy kenn ku ci nekk wàll wa nga féete nga bay ci salaat ci ba waar wi ñu bokk muy Sénégal ñu mën koo ñoŋal ba kenn ku ci nekk mën cee jariñu donc vraiment maa ngi encourager initiative initiateurs yi bu baax a baax di leen jox aussi sama engagement pour ànd ci ak ñoom di wax ni association bi ni bu doon am na ay carte membre tey damay jënd invité sénégalais ñu jënd surtout jeunes yi parce que lii nii chance la pour ñu mën a dajale suñuy xam-xam chance la pour ñu mën a structurer suñuy idée chance la aussi pour ñu mën a wan état bi yoon bu mu mën a jàppale jeunesse bi donc tey jii nii mbégte laa am fierté laa am mais aussi yaakaar laa am je pense que pour loolu lii ñoom Titi di def moom mooy wan jeunesse bi ne euh, ay modèle ngi nii

mu nekk waxtaan boo xamante ni bu yaatu mu nekk waxtaan boo xamante ni xel ak xalaata ko lal mu nekk waxtaan boo xamante ni yéeneem ak pas-pasam ak xolam la ko tibbee euh, jëmale ko ci jeunesse bi ñu sos ko daal di koy euh, daal di koy faram-fàcce ba génn ci yeneen xalaat yu bees yoo xamante ni incha allahu rabbi war nañ ko dégmal euh, population bi dégmal ko jeunesse bi ànd kook ñoom ngir incha allahu rabbi liggéey ko.

dimbali réew mi ñi ngi jàppale jeunesse bi ngir ñu avancer kon bu ñu gisee euh, ku mel ni moom ñu xool critères yi xool euh, lépp lépp xam ni kii daal nekk na nit koo xamante ni ku war a taxawu ànd ak moom liggéey la bi ko xoolee ba càmbar ko fépp ci la ñuy dem jóg sol suñuy dàll euh, ci biewu bil joxu mi ma ko doon wax ma ne ko waaw bismillah nañ dem seeti sëriñ bi waxtaan ak moom ci loolu bi ma gisee li ñu gis doy ñu ñu ànd ak mbooloo mi ñëpp da di ñëw fi ni and euh, ak mom mu wax fi lu am solo genn fi yeneen xel xalaat yu am solo loolu noonu euh, je crois que ni ku ci ñibbi tey doo ko mës a bàyyi doo ko mës a fàtte te plan d'action yi ñu war a am yëpp yëpp yëpp yëpp boo ci demoon cent mille nga ci def bés ni ko tey. waaw bi njëkk moom mooy euh, la sensibilisation ok bu ñu defee sensibilisation bi aussi def def def conférence de presse bi ñu defee conférence de presse bi ñu bëgg nañ ko incha allahu rabi def d'ici le 22 décembre le 26 le trophée de la jeunesse parce qu'on a vu que la jeunesse bi dañu soxla ñu jox jeunesse bi dañu soxla ñu dara jeunesse bi dañu soxla it ay vraiment ay kat lañ tek ci réew mi tok fi liguey fi ba ci mi ñu jël leen pour que jeunesse bi am ay modèle ngir roy ci